approximativement. Mhm. et vers treize heures aussi demoon na ba trente deux jëm trente trois pour cent. donc euh, globalement Grand Yoff ñu mais ñu ngi incité nit ñu gën a ñëw davantage pour qu'au moins ñu atteindre un de participation de soixante à soixante quinze pour cent. parce que élection boobu noonu moo tollu noonu ci enjeu. Mhm. Euh, di wax ne nag élection la boo xam ni bu amee tey dañuy sant yàlla parce que am na ñoo xam ne bu seen pexe jiboon euh, élection yi du am. Mhm. am na ñoo xam bu seen pexe jiboon élection yi du inclusif dëgg la su ma waxee élection yi du am mooy il y a de cela moins mois ay pexe doon na am pour fexe ba yi ñu reporté ko ko ba décembre mhm. am ñu defaat yeneen pexe ba ne d'accord nañ ci yóbbu ko ba juin dëgg la tey jii 24 mars yàlla def na élection mooy am na ñoo xam ne il trois ans bu ñu xëyaan suba ba ngoon seen nekkul woon leneen yi ñun askan bi ñun jeunesse bi suñu volonté ci tànn ku ñu neex ci offre politique bi ñu doy ci projet politique bi ñu convaincre ñu bañ a am possibilité def aujourd'hui nous avons la possibilité non seulement de voter mais nous avons la possibilité de choisir meilleure offre bi gën ci Sénégal mooy meilleur projet bi nga xam ne daf war a jëlee système bi ŋànk di muqi deretu sénégalais yi 1960 ba léegi donc loolu bu amee dañ koy sante yàlla ginnaaw bu ñu sante yàlla nag li ci des mooy taxawaay taxawaay mooy fexe nañ ba Pastef dans les seize mille bureau de vote yi am ci réew mi ak ci diaspora présent nañ fépp en tant que ay titulaire ak ay suppléant macha loolu weesoo aussi am nañ ay mandataires dans tous les centres de donc le dispositif il est opérationnel li ci des mooy jeunesse bi laay wax ñu jël seen responsabilité à travers ce que nous avons mis sur pied à travers la JPS muy le comité de surveillance du scrutin nga xam ne partout dans les communes def nañ ay comité de veille nga xam ne ñi voté wut ñi voté ba pare ak ñi nga xam ne nekkuñ sa ay représentant ñi nekk ci biir comité yooyu noonu seen rôle mooy toog di xool aux alentours des bureaux de vote est-ce que le vote se déroule dans de bonnes conditions est gisuñu ay cas de fraude lépp luy problème lépp luy corruption lépp luy jug pour influencer vote bi te loi bi tere ko ñu taxaw xeex ko ne du am loolu ñi jeunes yi ngeen ciy organiser bu baax a baax ci partout dans le pays li ci des mooy bu 18 heures na ñëpp delluwaat dans les bureaux de vote surtout les jeunes. incha allah dem officier comme ay scrutateurs. parce que le code électoral moo ko permettre. bokk ci wàññi xob bi bureau de vote bu nekk quatre scrutateurs mën nañ fa nekk. donc loolu daf ñuy permettre donc ñu gën a mën a participer à la surveillance du vote. et incha li ci des yàlla may ñu dem. incha que Sénégal jaaree fii soppi. incha vive le projet. d'accord News. news chaîne bi leen di joxe xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw